مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال يحسب yàlla yokk wéram ak mboolem ku ko ko yéene waaye noonu yi la nuyu tey ziyaara tey gërëm tey gën a yees lu doon suñu baay bii mat ko sëkk nag di mat baay di suñu sëriñ mat ko sëkk ndax dañoo wax ne yasxabu cheytan aarifan masalik yaqihi fi tariqihi almahalik yudakiruhu llaha ida ra'ahu wa yusil alabda ila mawla ca borom ibnu ash dañoo wax ne booy tànn sëriñ ne la gën a xam soobuwaay yi nga xam ne moo la mën a eggale ci suñu borom cheytan aarifan masalik li tax ñu di ko ñaanal mooy daf ñoo taxawu fu ne li tax ñu di ko ñaanal ma ne daf ñoo taxawu fu ne li gën a jafe li gën a jafe ci doomu sëriñ loolu la ñu njëkk a defal mooy mu jàngal ñu ba ñu xam yamu ca mu yar ñu ba ñu xam xàmmee ku ñu gis nag dang ñu naw ndax nim ñu yare waaye lépp moom lañ koy sant gërëm ko waaye nag ñu ngi leen di xamal ne lu ñu yaru yaru ragaluñ ndax moom mi ñu yor ragalu ñu ngi leen di xamal lim ñu yar yar yar ñàkkuñu fit ndax nit boo nitee danga xam la nga war a def ak loo warta def ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dolli wéram sagal nga ñu yal na gën la sagal kanji waxna ko kérok bi fi daam joom ñëwé ci kër ga mo mustafa mi bu ma mané len ne mi bu fekkon ne man Juduna fenen fo xamné ne du fami sëriñ ma ya, mag ba xamé gis ko mom mi doy na mu muy sama sëriñ ndax mboolem lu ñuy tànnee sëriñ mu ngi ci mom yàlla yalla guddal sa fan suñu lamine yalla bum la catu biig bi mu ma joxee ne ma lii def ko ci yëf yi man dama tiit daanaka mot na ay toni toni ciment te ñun ñooy ay taalibeem ñun ñoo waroon ji jël di ko jox wallahi wa sharafil quran ku ko gën a tabe ci àdduna amul bu tabaxul ay étanges tabee tax bu warut ci ay 4x4 tabeem moo tax kon nag yàlla na yàlla guddal fanam kaañ di nuyu tey ziyaara rakkam ji ne ci wetam di suñu bàyyi sëriñ Mamadou Kandji moom it ku am taxawaay la ci kër maam Thierno Kandji toujours bu jot mu ñuy conseiller lii biñ ko waxee moom rafetlu na ko te daf ñoo wax ne insha allahu taala danañ teew te noonu mu ko waxee la ko defee muy koo xam ne it ku bëgg njabootu maam Thierno Kandji la fu nit mën a toog ba commencé sikkal njabootu maam Thierno Kandji mu défendre la kon yàlla yàlla guddal fanam. di nuyu tey ziyaare bu baax suñu baay alxaaji cheikh kanji ndax moom keroog bisu woy juróom la ma yëkkati xaalis bu bari jox ma ne lii maa ko tàmbalee ci bis bi kon moom it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm mooy ki doon tëj xat bu bi léegi di ñaanalit suñu baay sëriñ Babacar kanji moom ci parrain yi la bokk li tax ma jël parrain yi boole ko ci parce que moom dafa sant Kandji te kii taxawal lii Kandji la sant te moom suñu baay la di doomu Serigne Cheikh Kandji di caatam démb yëkkati na lu toll ak une jox ma ne ko tàmbali ko ci bis bi di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yokk wéram ci barke yenent bi di gërëm it suñu mag di suñu kilifa di sëriñ Alaaji Sekk Kandji ndax maag moom mii ñoo dend fii muy sama mag bi lii amee ñëw naa waxtaan ceeg moom ba moom mi dend gi ma dend ak moom moo tax birig yi yëpp ma doon móollu fii laa doon jëlee ndox ci moom mu rafetlu ko léeg mason yi bu ñëwee di di di di defa euh, di di birig moom mooy jënd ndox jox leen ñuy naan rajo yi ñuy waxee courant bi ci këram la jóge kon tabaarakallaahu moom it mag ju baax la ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam dilah xamal it ne fi ñu nekk insha allah taala danañ jappante bu baax liggéeyal fi mam tierno kanji waye liggéeyal fi alquran ak diine ndax loolu moo ñu ñor ñu di ñaan yalla yalla yalla guddal sa fan di ñaanal bu baax it mbollem rak yi suñ tuddé señ Baye As rek mu yobale rak yëpp sëriñ Habib ngi kérok bi ñi ñew fi di bay ndax fi kenn mënu fi wona tok toog biñ edinet di nettoyer place bi mo top ci man waaye dafa laxasaayu doon taalibe yi ñëw jiite njaboot gi moom ak i rakkam ak mboolem taalibe yi ñëw na waaye barab bi yal yàlla guddal fanam di nuyu nag sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke mi egsi léegi bis bi dama cee boole suñu waajur wala suñu maam sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachiru ndax kenn mënta wax alquran te tuddoo maam Cheikh Ahmadou Bamba ndax moo ne woon kitaabun karimun min mu mukarramin nee na alquran mii dafa tedd bàyyi ko ci ku tedd te mooy borom bi subhaanahu wa taala wàcc si ku tedd te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa kon alquran dañ koo war a teral sëñ Muntaxa bëgg doomu soxna yi bëgg taalibe yi bi lii amee maag moom waxtaan nañ ca mu xamal ne danañu yónneel sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke mii mu ñëw teewal tàmbali na nag ci bis bi def na ci lu am solo te nee na ma duma bàyyi fekk pareegul di ñaan yalla mbacke yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokku wiram waye di gërëm seigne sëñ gay mom mi nga xamne ne dox relation bobu yal na yàlla guddal fanam waye nak di sant seigne Baye ñestandia muy suñu mak di ko baax bi mi def pause première prm bi bi ñëwé sama néeg tok ñu waxtaan waxtaan nañ lu yàgg a ci ñun doomu soxna yi wara taxawé mëna jappu mu xelal ñu ci wax ñu ci wax ju rafet kon moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it lim tàmbalee yàlla yàlla eggale ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant tey gërëm it suñu woyu jur wii di sëriñ mustafa Abdoul Oudoud Mbacke di la ziyaar bu baax di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan xëy na yëfi waxuma la ko waaye ci délégation ministre nga ànd ñu loolu ñu ngi koy tuub di ko jéggalu di ziyaar bu baax suñu baay Mouhamadul Amin Ndong muy imam di kilifa. di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam te yàlla yokk wéram di gërëm it tabaarakallaahu oustaz Cheikh Gueye bu daaray ruq kokki moom it teel na fee ñëw tabaarakallaahu ñoom ñoo jàng kaamil bi ah. ànd koog waa kër gi yëpp yal na yàlla fay leen di gërëm tey sant bu baax imaam alxuseynu mbooj ak mbooleem imaam yi nga xam ne imaam sëriñ xalifa Ndiaye di imaamu ndar gu ndaw tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye nag di gërëm di sant bu baax monsieur le maire malik Fall li tax ma di ko sant di ko gërëm def ku ne ku ko wax la bëgg ta mbokk yi li ni may bëgg symbole ni li ma bëgg def ni mom mi momako jox jox mako ci xol bu sedd guuy ndaxit it dañoo def fu ne demande pour bëgg fa daara juñu wara jàngale nit ñi alquran ak yar leen bi ñu defee demande bi mu xam ne man maa ko def ci la appuyé boole maag Birama Ndiaye mu ne na ci jàpp pour ñu signer dossier boobu mu mën a jàll bi ma ko seeti ji wax ko ko ne ko euh, euh, këyit yi lépp pare na génn na mu ne ma duma laa wax ne dinaa ci def nàngam waaye dañuy bàyyi bay lii yëpp weesu waaye li ci war yëpp dinaa ci taxaw ba mat ne xam ne taxaw naa ci te yàlla tax moom daf ñuy wax ne bu leen ma jàppee ne maire laa waaye jàppee leen ma ne seen mag laa ndax baay daara mooy sama sama wuyu jur la kon ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa wér yal na yàlla gën laa taxaw fi mu toll nii mbooleem kuy jàng ci daara ji xaraf bu mu jàng lu ko ca yàlla fay fay la ko yow mi joxe terrain bi yal na yàlla guddal sa fan tabaarakallaahu di gërëm tey sant yit monsieur le ministre Dame Diop muy nit ku baax di nit ku lewet bi ma joxee rendez-vous pour ma fekk ko ministère jour boobu dafa fekk mu feebar ba liggéey suut mu ne sëriñ bi de maa ko joxoon rendez-vous waaye du ma du ma du ma ko bañ a recevoir faaw ma indi ko sama kër mu boole ñoog safooram ñu ñëw fekk ko këram pendant une heure de temps toog nañ ci waxtaan ci mu ne ma bis bi dinaa ci ñëw te danaa ca def ñëw na te it xam naa ne balaa fee jógee dana joxe nam war a joxe ndax it faaw ñu wax ko mu leer ndax sëñ Ass amut amut dara man awma dara fi mu toll nii nit ñi rek laay tàllal loxo monsieur le ministre dama lay ñaan nang ci def waxuma defantu nag def waa defantu def laa bëgg di gërëm it Moustapha Gueye moom it sama xarit la sama soppe la muy nit ku baax bi lii amee mu ànd fa ak Mahmoud Gadiaga mii sëriñ bi wax leen ko mu ne lu ma ci man danaa ko def teyit dinaa teew tabaarakallaahu léegi la ma dee ne ma danañ la indi léegi dix tonnes ciment boobu baax na waaye dolli soxla naa béton soxla naa feer soxla naa it suuf dollil yal na yàlla guddal sa fan di gërëm tey sant it monsieur Sayer Diop moom it tabaarakallaahu bind nañ enveloppe am jox ko ko bëggoon ko ko jox mais mënuñu koo gis waaye nag waaw nee na joxe na 5 tonnes yal na yàlla barkeel bu élection yi weesoo it bul bàyyi doolil incha allah di gërëm it Souleymane An Ba muy sama xarit muy nit ku yàlla baaxal muy nitu kase maag moom boo ñu fekkee ñu toog da ngay mel ni ay moroom lañ lu ne la ñuy waxtaane mu gis ma bëggal ma boppam yàlla tax ndax li may def di ñaan yàlla moom it yàlla na yàlla guddal fanam nee na ma mbir mi li ci war yëpp dinaa ko def wallahi wa sharafil quran te bu ko waxee dana ko def ndax xam naa mooy kan yàlla na yàlla guddal fanam moom ak xaritam yi àndal nga xam ne ñoom Amadou Sow tabaarakallaahu ak ku ci mel ni vie yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant di gërëm sëriñ As Birane Seck muy kenn ci man di sama xarit bëggal ma boppam lool jàpp ma te yàlla tax fi mu toll nii fii may wax ak yéen joxe na 10 tonnes ciment indi na 5 tonnes yi te yeneen 5 yaa ngi ñëw ne ma maa ko tàmbali ci liggéey bi te it du ma bàyyi ba mbir mi di jeex te dafa am yéene ci bis bi te xam naa ne lépp lu mu wax it ko def di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk wéram sëriñ As xamante nañ bu yàgg ci koñ bi. ñuy daje yu baree bari waaye ki gën a dëgëral suñu diggante mooy Ceekura Seen moo ñu boole ñu ànd te yàlla tax te Ceekura mi pré euh, euh, monsieur le maire Malick Fall moo ñu boole keroog bi ñuy inauguré ISI bi jàkkaarloo gouvernance ak kër xaadim foofu la ñu boole na na ngeen jàppante te yàlla tax yàlla na yàlla guddal fanam sekk di gërëm tey sant bu baax suñu bàjjen ami Cissé moom sëriñ Mor Mbaye Cissé. ndax kenn mënta tudd alquran te tuddoo sëriñ Mor Mbaye Cissé muy suñu bàjjen di suñu xarit moom ak suñu bàjjen Penda Cissé di leen sant di leen gërëm moom it bis bi bi ma amee ba ma dem toog ak moom waxtaan ak moom da koo def mu yitte boppam te daf maa wax ne ma DG dana ñëw dana ñëw te dana ci def di ko ñaanal bu baax moom it yàlla yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk seen wér te dolli leen sutura di nuyu tey gërëm suñu bàjjen ma assu Kandji moom Serigne Ibrahima Kandji caatu maam Thierno Kandji moom it ci ñi ma tuddee bis bi ci la bokk ndax mbir mi bu ma ko jëlee tuddee ko ay jàmbur te tuddee ma ko samay mbokk ñii ñëw danañ xalaat ne ah moom di ay jàmbur rek la tuddee te nit ñi dañoo mën a yóbbu waaye bàjjen ma su suñu xarit la joo xam ne toujours bu jot dafa ñuy xelal di ñu di ñu di ñu di ñu sagoo di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam biig ci guddi la fa ñëw indi fa njëgu une tonne ciment ne maa ko bi. di ñaan yàlla moom it yàlla na yàlla guddal fanam ngeen baal ñu rek faaw ñu sant ñi ci def ndax bis bi bisu sant la ndax it ku ci defut duma la sant waaw waaw ku ci defut duma la sant ku ci def nag danañ la sant ndax lii mënalu ma ko sama bopp mënalu ma ko sama bopp kon nit ñi rek laa ci mën a tàllal loxo pour ñu dimbali ma ci di ko ñaanal moom it yàlla yàlla guddal fanam di sant tey gërëm soxna Ayda Diallo moom Serigne Cheikh Béthio Thioune di ko sant di ko gërëm yónni na fi ay ndaw jox ma ay ceeb ak ndox boole ci enveloppe ne ma maa ko tàmbale ci bis bi te it du ma bàyyi fekk bis bi jeexul mu yónni fi ay jëwrinam keroog bi ñëwee sama jur wi lañ fa fekk di ñaan yàlla moom it yàlla na yàlla guddal fanam di gërëm it di sant suñu yaay soxna Mati Sëy mu suñu bàyyi jibi saw moom it ci marin yi la bokk ki démb dafa ñëw kër ga fekkuma fa sëriñ bi la fa fekk mu yëkkati enveloppe bu duul jox ko sëriñ bi muy muy ñëgu ñaari tonu ciment maa ko tàmbali ci bis bi moom it faaw ñu sant ko gërëm ko te ñaanal ko yàlla yàlla yàlla guddal fanam di sant it tey gërëm soxna Assou Mbène Sall mu suñu baay Habib sàll mu ma Mbacke sàll Mbacke ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom it am na taxawaay ci bis bi li ci war yëpp def na ko tabaarakallaahu biñ tàmbalee ba tey bàyyiwut te nee na it bu ñu commencé ba ba ma ñuy eggal du ñu bàyyi tey it loolu mu ko wax dana ko def moom it ci marraine yi la bokk ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk wërsëgam di sant tey gërëm bu baax tey ñaanal pa Abu Kamara moom it bis bi li ko ci war mu ngi ci defagul nag day leer pa Abu defagul monsieur le ministre. bu fekkee sa xarit la defagul te daa war a def maa ngi xaar nag say tonu ciment bu boobaa dinaa woo média bi yëpp ñu ñëw ma ne Paa Abou jox na kon nag tabaarakallaahu di sant it maam Asek maam Asek léegi la fi jóge dafa war a ñibbi Dakar moom it jox na ma njëgu une tonne ciment bu maam El Hadj Ibrahima ne ma maa ko tàmbalee ci bis bi te du ma bàyyi feeg yi fi pareegul di ko sant di ko gërëm. di sant tey gërëm suñu baay Tidiane Faasa nekk ca Ndakaaru moom it tabaarakallaahu ci parrain yi la bokk yónnee na ma ñëgu une tonne ciment ne ma it insha allahu taala danañ ci continuer di ñaan yàlla moom it yàlla yàlla guddal fanam di gërëm tey sant it mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seeni fan Omar li sama wëllëre la sama xarit la moom moo duggee moom it ñoo koy sant bu baax. ak suñu baay aadama ndaw tabaarakallaahu di sant tey ñaanal bu baax suñu baay soosu si waaye di nuyu directrice centre culturel bi di soxna Yacine Ngom muy suñu xarit di jigéen ju baax di jigéen ju mën góor di ñaan yàlla moom it yàlla na yàlla guddal fanam ñëw na ñëwal na yàlla na yàlla fay ko di nuyu ah kooku de war naa tabaarakallaahu yàlla na yàlla guddal fanam di nuyu tey ziyaare bu baax suñu yaay di suñu soppee muy soxna Marème jaañ moom mu góor gi naar Diagne góor gi naar Diagne sëriñ Mamadou Kandji mooy wuy mooy mooy wasila moom it tabaarakallaahu ñëw na indi délégation def ca la ca war jox ma enveloppe ne ma maa ko tàmbalee ci bis bi am na ci yéene nag ndax yóbbu na ma ci kilifa yu bëri pour ñu lu ci bis bi di sant waa daayira soxna maam jaara Bousso bi nga xam ne ñoo nekk cité ouvrière ñoom it nga xam ne ay ndeyi daara lañ yàlla rek a tax ñuy def di leen ñaanal ñoom soxna Khady Diop yal na yàlla guddal seen fan ñoom nag indi nañ fi enveloppe bu duul ne ñoo ko tàmbalee ci bis bi ñoom it yal na yàlla fay leen di gërëm it Massila Massila maa ngi koy gërëm di ko ñaanal jox na ma Baye Samba Awa camion beton bu 16 mètres bi te loolu bu ma ko mën bu ma ko bëggoon a jënd dana metti ci man mu ne ma maa ko tàmbalee ci bis bi te du ma bàyyi ndax sama xarit nga sama soppe nga bi mu ñëwee gis nga ni mu tàmbalee di ko ñaanal moom it yal na yàlla guddal fanam te yàlla yokk wéram def na ci bis bi yal na ko yàlla fay ci barke Seydunaa Muhammad di gërëm tey ñaanal sëriñ Touba Seen di ko ñaanal bu baax waaye nag di ñaanal Pape Ndiaye promoteur kenn la ci man moo ma booleeg sëriñ Touba Seen sëriñ Touba Seen it ci ci ci pare yi la bokk démb la woo Pape Ndiaye nekku nañ daje bureau mu yëkkati njëkku njëgu une tonne ne ma maa ko tàmbali ci bis bi di ko ñaanal moom it yal na yàlla guddal fanam di gërëm tey ñaanal it Moussa Sarr di njabootu sëriñ bi di xarit di di doom ci kër maam Thierno Kandji nee na ma bis bi li ci war yëpp dinaa ko def di ñaanal ko yàlla yàlla yàlla guddal fanam di ñaan yàlla képp ku fi teew yàlla yàlla faj sa aajo wallahi buñ bëggee topp nuyoo yi ak sant ak gërëm kenn ku nekk ñu bëgg laa tudd temps bi dana dem ku ci nekk. muy Mbaye Babacar fay di ko ñaanal bu baax moom it yal na yàlla guddal fanam jàpp na ci yëf yi nee na ma fii ci quartier bii nga am daara ji dafa am délégué de quartier ñu di ko wax Mañik fay moom it tabaarakallaahu ñëw na ñëwal na yàlla yàlla fay leen di gërëm it suñu bàyyi Alioune Faye Mansour di ko ñaanal bu baax moom it suñu baay la yal yàlla guddal fanam te yàlla yokk wéram di gërëmit sama xarit sama soppe Assane Sylla moom tabaarakallaahu di ko nuy di ko ziyaara yalla yalla defal len jam, suñu baay Samba Awa Tabarakallah, bara yeen ñep ñu ngi len di sant di len gërëm di ñaanal képp ko xamne ne teew nga fi te jóge kër mam cierno kanji mo xam ci yenen quartier yi ak it di gërëm Wah, waaw heure ngi dem ñu dal rek te génne ko su ko défé ñu tambali parole yi di gërëmit it waa Dingra xam ne dañoo nekk ci koñu Ngolomit suñu bàyyi Abu Ndiaye jiite ko ñoom it teew nañ di leen sant bokk ak suñu wéyjur wu jigéen ndey ak baay moom it jóge na ba Dakar ñëw ci bis bi di ziyaare it suñu bàyyi Cheikhou Diop di ziyaare bala ñu jox bàyyi daara mi nga xam ne mooy njiital jataay bi des ab des des ab des des ennemis te loolu vous l'avez prouvé dama gis léegi jataay bi parce que ñun dañuy jàng ci jataay yi nag El Hadj Mbaara ñu rek attitude nit ñi at ji jëf ji dama gis Moustapha Gueye mi moo fi njëkk ak Souleymane Anne Ba mais bi Malick Fall ñëwee daf ko jox la ko ñu saafonte fóonante mu rafet lool ñu toog ba yàgg daam jóom ñëw en tant que ministre Malick Fall jóg accueillir ko ñu saafonte fóonante te au lendemain du vote le 24 janvier ñi la ñu toogawaat bokk ndey lu yàlla def ñu xam ne loolu la ñëpp ci bokk ci lu tax parce que ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk njaareem ñoo bokk sëriñ si ñoo bokk tarixa yi bokk diine ji te bu ëllëgee lu yàlla def ñëpp ci ànd kon jàmm ji fi am suma salaatu wa salaamu ala ars asrafi almursalin sayidina muhammad wa ala alihi وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sëriñ bi ne xanaa day yëkkati kaddu ne ngir dalal xelu njaboot gi waaye daal li ma ta wax yépp waxees na ko alhamdulillah ne daf doon dégg ci seen benn baay muy góor gi Ibrahima Seen muy góor gi Seen nekkoon sëriñ daara mooy bàyyi Cheikh Tidiane ne mooy bàyyi Cheikh Tidiane Seen bi firi gàmm yi mu ne boo amee doom mu ne boo amee doom ne doom ja di nga yaru mbaama rey la ne yàlla na fekk yàlla nam sa doom jooju yaru ne bu ko yàlla namut ne danga koy rey rek waaye du yaru ah fa tabaarakallaahu xale yi sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal yàlla sëriñ bi ne dafa am lu muy faral di wax sëriñ ne day wax ne boo yëngu ci mbir nee nga gestu gis sa njaboot ci sa wet nee soo ko waxee ak soo ko waxul sam xel dal na nee waaye saa yore saa yoo yore ak njaboot am loo yëngu gestu gis leen ca weneen woor beneen boor nee soo ko waxee ak soo ko waxul nee sam xel du dal fa tabaarakallaahu sëriñ bi ne ñu ngi leen di dollee ñaanale yàlla ne ndax ëpp ñu seeni bokk ne wolof def ni képp ku yées ay bokkam dib dof waaye itam ku ëpp ay bokkam di njuuma fa tabaarakallaahu lii sëriñ bi ne dal na xel suñu maam Thierno Kandji radiallahu anhu la samp daara fii ci njaareem ne maam Thierno du gone nag ne booba fekk na ko góor gi romb juróom benn fukki at fa tabaarakallaahu daara jooju mu yor ko ba 1938 mu jox ko ku ñuy wax ASEC di turandoo Seydil Hadji Malick ASEC yor ko ba 1941 daara ji bër bëru kori mu tàggoo ne dafa bëgg dem Tëngéej ndax mu xam ay bokkam ndax mu xami bokkam ba mu demee. tubaab yi gis ko. tubaab yi gis ko. te miinuñu ko. te miinuñu ko. ñu téye ko ñu téye ko. enquête muy Rufisquois. ñu ne ko dañ lay tëj kaso. xam booba Sénégal quatre communes la am. nee mooy Ndar. Gorée. Tëngéej. ak. ak Ndakaar ne muy quatre communes te moom ki la bokk ñu ne ko bi nga amee dix-huit ans yow dangaa waroon a engagé armée te kon da nga doon nëbbatu gannaaw feeñ nga nag teg nañ loxo ne mu bind lettre maam Thierno wax ko li xew maam Thierno na ko mën ngaa toog topp loola ba yàlla sottal ko ci la woo woy juróom moom mi sëriñ Mamadou Kañ jox ko daara ji sëriñ Mamadou yor daara ji ba 1968 muy am ay absance ne te booba njàngam moom pareegut ne ma du ko ci wutu zawiya maam koy tabax. ba bi ñuy tabax zawiya suñu maam Cerno Kàññi bi. 1968 boobu. 1968 boobu. ne. ña doon mënee baru. ña doon mënee baru. ne moom mii ci la bokk. waxut mënee baru ñu fay la de. mënee baru rek ngir da ngaa war a liggéey. booba saako ne booba saako ciment. 175 lay jar. jël na buret ba tàyyi. ne jël na buret ba dem biti ko yaxya jënd saako ciment teg ko puus ko indi ko ci jàkka ji ndax góor gi bi ñu tolloo ci jàng bi ñu tolloo ci jàng ay taalibe la ñu def ay taalibe la ñu def ne ay taalibe amul kii doomu sëriñ la de lii seen ndaayaan bi ne fari na fi ndéef ba tey ba tey te boo indee benn bu tooy doo ndékki liggéeyu jàkka ji jeexee. nee bi liggéeyu jàkka ji jeexee. 1969. 1969. góor gi woo ko jébbal ko daara ji nag. ñu di ci góorgóorlu. nee ñu di ci góorgóorlu. yàlla dinañ ci wan ay résultats. yàlla it dinañ ci wan ay résultats. ci ci ñu toog. te fii ñu toog. alaaj cheikh mi. ne bàyyi seex cheikh mi. doon jàng xatma bi. ci daara jooja la génn. sëñ Mamadou mii di magam. sëñ Mamadou di magam it. fa la doore. ba xaw sori. ba xaw a sori. soog a dem Medina Baye Niass. mottale fa njàng. Baye Niass yóbbu ko Maroc. fa tabaarakallahu ne man mii di jottali sëriñ bi. foofa la foofa laa génne. ndax man mii ki ma jàngal. di oustaz Ibrahima Diagne. moom Baye Daara moo ko yor. ba ber ko. fa tabaarakallaahu ne moom a jàngal man mii itam ne boobaak léegi léegi yàllaa ngi ko ci wan yeneeni résultat yu kawe lool ne fii muy wax ñun nii juróom-ñaar seen àll wa pare na ba ñu ngi baax beq kon nag boo gisee turu baay nee boo gisee turu baay daara. mooy ci daara mooy baay daara ci daara la juddoo. sama baay ci daara la juddoo. baayam ci daara la juddoo. maam ci daara la juddoo. maamam ci daara la juddoo. maami kooko ci daara la juddoo. kon nag kon nag. boo toogee ba sa def lu mel nii. Eh, fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. moom wane na ne. moom day wane na ne. li nga nekk. nekk. ñor na ko. kon yal na yàlla boole ñu kon yal na yàlla boole ñu dimbale. ba mu sotti ak jàmm ba mu sotti ak jàmm. te muy joxe ay résultats yu am solo. te muy génne ay résultats yu am solo. nee li Baye Samba wax léegi. ci mbokk yu baax yi toog. sëriñ bi ne Baye Samba li nga wax moom sëriñ bi jàng na ci lu bari. ci jataay bii nga wax. ne jàng na ci lu bari moom ne ñoom ñi bëgg ay ay cër. bëgg ay cër. ci am yéene defar dëkk bi. ci am yéene defar dëkk bi. mu mel ni. mu mel ni. boo xamut. boo xamut. danga naan ay noon lañu. danga ñoom ay noon lañu. waaye xoolal tey. bañ toogee fii ba léegi. nee ba ñu toogee ba tey. dañuy kaf di ree. dañuy kaf di ree. kon nag ñi kon yéen ñi nekk ci gannaaw. gis nga kenn ku nekk ci ñoom. nee gis nga kenn ku nekk ci ñoom. am na supporter. am na supporter. nee na supporters yi roy ci ñii nag di acteurs yi. kon jàmm rek kay am. nee kon jàmm rek mooy am. jàmm rek kay am. jàmm rek mooy am. yal na yàlla eggale woote bi. yal na yàlla eggale woote bi. wax naa wax naa leen ko ñoom ñëpp. ñëpp kenn ku ci nekk wax na la ko. tànn na ba pare. nee na leen yàlla dey tànn na ba pare. ka muy tànn ka yàlla di tànn nag. du kenn. yàlla du ci diisoo kenn. waaye amul kenn ko. waaye amul kenn ku muy rendre compte itam. kon nag. nan ko rafetal. ba bu weesoo. weesoo. xool sa képp ku ci xool sa morom. doom am kersa. fa tabaarakallah. Eh, aasa lii mu def cër la. ne Seydi Hadj Malick li nga def cër la. ni ko Samb ni ko Samb Awa waxee. ni ko Samb ñii nga dajale. ñii nga dajale. dajale leen yomb. dajale leen yomb. Eh, ne yëpp ngi fi. ne mën nañoo wax ne daal jataay bii Sénégal yëpp ngi fi. diine ji yëpp ngi fi. mën na noo wax it ne diine ji yëpp a ngi fi. mën nañoo wax it ne parti politique yëpp ñu ngi fi. mën na noo wax it ne parti politique yëpp ñu ngi eh, bala ñoo fàtte. bala ñoo fàtte. sëriñ Saliou Sarr. Serigne Saliou Sarr. Serigne Saliou Fall. Serigne Ibrahima Fall. Moussa Ibrahima kër yéen. Eh, nee nuyante nañu fi. démb rek la bàyyi mu yónnee démb rek la bàyyi yónnee ci moom. am solo. indi fa ziyaar bu am solo. yàlla na ko yàlla fay Thierno ak Thierno Amal jàllo itam Thierno Ahmed Diallo bu ndaayaan mu xaddam Ahmed Diallo waaw ne tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla fay ne Cheikh Omar Diallo itam ne woon na dana ko teewee si ne dafa am jarbaatam buy tudd faa jiitu mu waroon faa jiitu soo ko mujjee fii kon sëriñ Moustapha Abdou Wadoud sëriñ Moustapha Abdou Wadoud Mbacké sëriñ Sidi Makhtar sëriñ Sidi Makhtar Mbacké ñu ngi leen di jox seen nuyoo bopp sëriñ bi nee mu ngi leen di jox seen nuyoo bopp ndax loolu lu yàlla dogal la nee loolu lu yàlla dogal la kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara fa tabarakallahu imaam Daouda Djigo imaam Thierno Daouda Djigo ca nee na teel na fee ñëw nee bi ñuy yegsi rek la yegsi moom itam fa tabaarakallaahu nee monsieur Dame Diop Malick Fall Moustapha Guèye Sayer Diop ne yéen jiite politique bi fii ne sëriñ bi mu ngi leen di sargal te di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal ñu tawfiix defal ñu it taysiir ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yàlla na lépp di jàmm ne yàlla bu ñu am déception ne bu liy sottee yàlla ñu jig yal na yàlla barkeel bu ñu jigee yal na barkeel fa tabaarakallah ne waxtu baa ngi dem te nit ñi amuñu jot ne ñi wérit ñu néew la soxla yi ëpp nañu doole kon bu ñu toppee waxtaan bi

ne ko. lii ak lii lii. ko lii ak lii ak lii. laa bëgg ci ñoom. ci ñoom. loola def ko. nee na lam ko santoon seex Gueye def na ko. ba weesu. ba weesu sax. fa ko doon séntu moom. te ndamoo nee te Cheikh Gueye ndamoo ko mukk. mosu koo wax fenn. te it mosu koo wax fenn. fa tabaarakallaahu. nee ragal naa ne sëriñ bi bay daara bi muy yor daara. nee booba Cheikh Gueye mii yor daara ji tey warut a gane àdduna wala bu gënee àdduna yi matagul woon jàng kon fa tabaarakallaahu euh, day bokk ci kañaan day bokk ci kañaan nga gis qualification ci sa mbokk nga gis qualification ci sa mbokk nga añaane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxasuudu laa yasuudu ku añaan moom doo masa ab sang doon sang nag neexu la ràññee doon sang neexu la ràññee de fa tabaarakallahu ne li ngeen naal ngir def ko ci bis bi yàlla na ko yàlla yombal bu ñu ko ci defee yàlla na ko yàlla nangu ne daana dégg ci bàyyi alaaji bu saaxu muy wax ni lu mel nii nee na nga fexe yow ba njëkk caa def yonent bi dañ moo wax néegub yàlla ne néegub yàlla ak barab bu ñuy joxee xam-xam ak barab bu ñuy joxee xam-xam boo ca defee sa dërëm nee booba boo ci defee sa dërëm ña fa jaamu yàlla ña fa lu leen yàlla fay fay fay la ko te yow doo wàññi ci seen yool dara. lu fa waaye wut ci xam-xam. lu fa waaye wut ci xam-xam itam. ba am ko fa ba am ko fa. bu génnee njëriñ lu mu ci amee njëriñ lu ca lu mu ci amee. ne yiwu doy noona. yàlla yóbbul la ko ci sa bàmmeel. mu di la fa xaar. ne te bu demoon bay màbb barab ba. fondation ba. mooy mujj. moo fay mujj. kon fexe ba sa yëf bokk ca fondation ba. lu am solo la solo kon nag. kon nag. Euh, mbir mi daanaka sotti na. xanaa ñu jiima xeer wi. su fekkee ne amul. ñu ci bëgg sànni kàddu. nit ne la nga dund yaa ko mën a seede wax nga ko léegi kilifa nga. waaye ku xam daaraaru ko kokke xam biraan siisi xam ne def nga si moom xam-xam te mosoo koo tiitaroo kon boo yëgatee Anse Malick andi ko daaraaru ko kokke mu ñëw dafa sàkku xam-xam dafa am leer goo bëgg a tabal sa daara moo tax nga def ko te ñu ngi lay seedeel ne Anse Malick mii waa daara ji yëpp gërëm nañ ko képp koo xam ne jàngale kan xam lu mooy nit man nga am xam-xam te yar du nekk si yow nit man nga am xam-xam te teggiin du nekk si yow mii doomu kilifa la yàlla def na ci moom xam-xam waaye amul lenn loo xam ne dana ko yëgati te du taal otoom wala mu dox ñëw ba sëriñ Seex mais waxtaan cee moom diisoo see moom te bu ko neexoon mu woo ko téléphone waaye du ko def mukk kon loolu yëg la kon Ass ci sama tur ak turu Seex mii ñu ngi lay sant si sa kanam way jur yi ñoom waa daal ji ñoom Matar Dramé ñoom ñëpp a ngi fi ngir taxawaayu Ass ci daara ji te fu mu taxaw da koy wax da wax ne moom jàngee na ruq ko loolu sag na ñun kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla jàppale la te naal bii nga daan yëkkati fii wallaahi suñ ko maamam ñun ñooy def lépp ndax suñu sag kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di wax ne Serigne Cheikh Tidiane Ahmed Guèye mii ñun mooy suñu ruq kot moom lañ am ku ko jàpp ñu jàpp la. ndax jëmmam ji jëmm alquran la ku fa ñëw lum lum teel teel nga fekk ko muy jàngale alquran lum guddi guddi nga fekk ko muy jàngale alquran kon ku ko sagal alquran nga sagal kon jërëjeen jëf ñu ngi nuyu suñu ak ñu jox ko kàddu gi woy juróom woy juróom sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Basiru Mbàkke bi mu fi nekkee bi mu fi nekkee talaata bu ne talaata bu ne dana seet si sama woy dana seet si sëriñ Mamadou Kagne boobu mi nga yoroon oto bu ñuy wax naasu Versailles. boobu mu nga yor oto bu ñuy wax naasu Versailles. xam naa ñoom daam xamuñu oto xam naa ne ñoom daam xamuñu oto yooyu moom. xamuñu oto yooyu xamuñu oto yooyu. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. Moustapha Ndiaye moo ko doon dawalal Moustapha Ndiaye moo ko doon dawalal. Ah, ah, ah, talaata bu ne. talaata bu ne. bu góor gi nekkee ci daara ji di bind ba yàgg. bu góor gi nekkee ci daara ji di bind ba mu yàgg. sëñ Basiru moo lay ñu ne ko sëñ Basiru moo lay seet mu jóg mu jóg ñu ne yoxoos ci biir ñu ne yoxoos ci biir ne ràpp tëj ne ràpp tëj kenn xamul luñ fay def kenn xamul luñ fay def fi mu nekk nii fi mu nekk nii maa ngi kaamil boo xam ne mu ngi kaamil boo xam ne xattul yeddi la xattul yeddi la sëñ Basiru moo ko bind sëñ Basiru ko bind ci loxom ci loxom jox ko sëñ Mamadou maa beneen boo xam ne mu ngi beneen boo xam ne xattul yeddi la xattul yeddi la sëriñ Fallou Mbacke sëñ moo ko bind ci moo ko bind ci loxom jox ko sëñ Mamadou jox ko sëñ Mamadou sëñ taalifam yëpp taalifam yëpp maa ngi moom maa ngi ak moom te moom moo ko jox way juróom fa tabarakallah nuppi muy ministre Dame Diop di maire Malick Fall di Moustapha Gueye directeur général ñoom ñëpp di candidat dañ li Baye Daara wax doy nañu jaratul kenn du jël parole ndax bu sa kilifa waxee yóbbaale nañu ñun ñëpp te waxtu waa ngi jot tisbar lemu jot te bàyyi daara mi imam la kon duñu wax dañuy bàyyi kàddu gi li bàyyi daara wu ñoom ñëpp yóbbaale na leen kàddoom ci bismillahi rahmaani rahim di wax alhamdulillahi rabbil alamin di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbokk yi sëriñ bi ne mu ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di tàmbali nuyoo bi. di tàmbalee nuyoo bi. ci sëriñ Baye Daara. ci sëriñ Baye Daara. mooy kilifa jotaay bi. nee nga xam ne mooy kilifa gi léegi. ñu koy nuyu. nee ñu ngi lay nuyu. di la ziyaara. di la ziyaara. di nuyu njabootuk maam Thierno Kandji yépp. di nuyu njabootuk maam Thierno Kandji yépp. ñu ngi nuyu itam. nee ñu ngi nuyu itam. sëñ Moustapha Abdoul Wadoud. suñu mag sëñ Moustapha Abdoul Wadoud. nee ñu bokk sëñ Touba. nee ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare itam. ñu ngi nuyu itam. nee ñu ngi nuyu itam. Euh, ñi nga xam ne ñoo fi teew. nee ñu ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teew. ministre bi nga xam ne mooy ministre Dame Diop. nee ministre bi nga xam ne mooy ministre Dame Diop. nga xam ne moo jiite délégation bi. ni xam ne moo jiite délégation ñu ngi ñu ngi koy nuyu. di ko jox wàcc waayam. Euh, suñ ko nuyoo moom daanaka rek. doy suñ ko nuyoo moom daanaka doy na. ndax jotaay bi dafa xat. ndax it bi dafa xat. waaye euh, mënuñoo ñàkk a tudd. waaye mënuñoo ñàkk a tudd. Euh, directeur Moustapha Guèye. directeur Moustapha Guèye. muy suñu mbokk. ne muy suñu mbokk. di ànd ak moom ci liggéey bi. di ànd ak it moom ci liggéey bi. di nuyu itam directeur Sayer Diop. ne di nuyu directeur Sayer Diop. ak ñi ñu ñëpp. ak ñi ñu àndal ñëpp. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu. maa ngi nuyu itam le maire Malick Fall. ne mu ngi nuyu itam le maire Malick Fall. xel xel day fattu. ne xel day fattu. maa ngi koy nuyu bu baax. ne Malick mu ngi lay nuyu bu baax. mu ngi lay nuyu bu baax Fall. comme ni ma ko waxee rek. ne sëriñ bi ne ni mu ko waxee rek dafa teewal kilifa. sëriñ bi moo ma yebal. ne sëriñ Mountakha moo ko yebal. ne ma. ne ko. nag ma demal ci. ne ko nag ma demal ci. ni sëñ Malick Kagne di. ni Serigne As Malick Kagne moom Baye Daara di taxawal. xeer muy teg xeer wa mi xeer wa muy teg. soo demee. xeer wa muy teg. soo demee. soo demee. nga jottali leen. nga jottali leen. sama nuyoo. nee sama nuyoo. nga xamal leen ni. nga xamal leen ni. loolu ñuy def. loola ñuy def. man lañ ko defal. nee man Serigne Mountakha lañ ko defal. ndax lislaam lañ ko defal. ndax it lislaam lañu ko defal. te lislaam lépp luñ koy defal. nee te lislaam lépp luñu koy defal. kenn waruma caa jiitu man sëriñ Muntaxa sama xol sedd na ci guy ne na nga wax sëriñ aas ak njaboot gi yépp sama xol sedd na ci guy na xam ne na xam ne sëriñ bi dafa fatu sëriñ bi dafa fatu dafa fan yi dafa fatu fan yi euh, téléphone rek téléphone rek lay wax ak moom waaye xamal na ma ni waaye xamal na ko ne su génnee fan yi su génnee fan yi moom mi dana fa ñëw moom mii sëñ aas dana dana ko woolu mu ñëw fa ànd ak Abdoulaat Gay ànd ak Baye Abdoulaat Gay Abdoulaye Gueye mu bàyyi su Gueye. Abdoulaye Gat Abdou Abdoulaye Gueye mu bàyyi Souley Gueye. Abdoul Ahad Gueye. Abdoul Ahad Gueye. mu bàyyi Souley Gueye mu bàyyi Souley Gueye. moom la àndaloon moom la àndaloon. ci sëriñ bi ci sëriñ bi. waaw léegi nag. léegi nag. sëriñ bi sëriñ bi. su génnee fan yi ne su génnee fan yi incha allah danañ ànd ñoom ñaar ñoom ñaar dinañu ànd. ci ci moom ci sëriñ Mountakha. mu àggale waxtaan wi. lam cee war a defit lam cee war a defit ñu def ko ci ko ci. waaw loolu daal ci gàttal. loolu daal ci gàttal. laa ne woon su ma accès naa ko laa ne woon sa accès dana ko ci wax. maa ngi sant ñëpp ne mu ngi sant ñëpp di gërëm ñett. sëñ Abdoulaye Gaye ku baax la. ndax bëgg sëriñ As xaritoog moom moo tax mu jox ma yére bii. ne ma sol ko ci bisu sëñ As bi. bàyyi laa Gaye mu bàyyi Soulaye Gaye mu sëñ Fallou jërëjëf layli ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما loxo waaw. teg na si ma wax dëgg yàlla bu may ñaan ci barke maamam ak yàlla bu ñu ko mën a mën وأما اليتيم فلا تقهر léegi nag ñu jël mool ba Thank you. Malick sëñ Baye Daara Baye Daara sëñ Mamadou Mame Thierno Kane radiyallahu taala mooy baax baax ñu ko doon bëgg di bokk rek. Bika Whoa!